Ici l'éducation. Nous sommes des enfants. Tenir un enfant par la main, l'aider à traverser les âges, à affronter la vie en toute quiétude. Eh, Sud Éducation, info, assister conseil pour encadrer au mieux les enfants dans leurs études, leurs loisirs et leur bien-être. Sud Éducation, la toute nouvelle émission de Sud FM en compagnie de Mariem et Aïda. Hey, eh, tu lèves un genou, tu lèves l'autre genou et maintenant tu sautes. mbokk yi déglu asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci suñu numéro 81 bu Sud Éducation niñ koy defee saa su nekk mag Mariem ñoo bokk plateau bi Mariem loo ñu indil ci waxtaan wi. Euh, ay détails suñu waxtaan mi ngi dem ci euh, wàllum devoir yi maanaam yi nga xamante ni exercice yi ñuy jox suñu doom yi yi professeurs yi di jox xale yi suñu nekkee école te ñuy war ko def suñu nekkee seen kër. Euh, Mariem lu devoir yi di jariñ ah devoir nag am na am na ay njariñ yu bari ndaxte euh, soo su suñ nekkee école xale yi dañuy jàng ay leçons yu bari te leçons yooyu pour ñu ñu retenir ko jàpp ko ci seen bopp comprendre ko bu baax dañuy war a def ay exercices exercices yi gaa sax dinañ ko def ci biir classe bi waaye itam ñu ñibbee seen kër dañuy war a xoolaat seen i ay leçons ubbiwaat seen i ay cahier jàngaat leçons yi lire ko ba nga xamante ni suñu defaatee ay exercices seen biir kër dinañ ko gën a mën a comprendre te itam euh, li ci gën a am solo mooy que ñoom ñu mën ko comprendre seen bopp. bopp nga xam ni professeur bi nekkatu fi pour expliqué leen ba ci ba nga xam ni ñoom ci seen bopp ñoom moom élève bi dina xam ni léegi comprendre na leçon bi su fekkente ne nag daf ci am ay jafe-jafe dina mën a xam yan jafe-jafe la ak yan question yan laaj la waa dem laaj professeur am su ëllëg sax. kon su ma la déggee bu baax suñu doom yi bu ñu ñëwee ñun dañu leen war a dimbali ñu def seen devoir yi toog ak ñoom def devoir yi. normalement di su fekkente ni amul suñu doom amul benn problème devoir lactewul ay ay waajur wala keneen nekk wala muy répétiteur wala muy benn euh, mag wala tante oncle bu nekk ci biir biir kër gi di ko jàppale normalement comme ni ma ko waxee rek su fekkente ni xale bi déglu na bu baax comprendre na ay leçon wam devoir yi dafa war a nekk dara lu yomb pour moom dara loo xamante ni su ko su ko defee day day gis ni moom comprendre na bu baax li nga ko jàngal kër kii école ba te nag te aussi le fait que muy defal devoir yi boppam day wan ay waajuram euh, que moom li liñ ko jàngal école bi am na efficace efficacité efficace na ndaxte euh, professeur bi ni muy expliquer jaadu na ba nga xamante ni du soxla kenn ku koy expliqué waat su demee kër ga. Hmm, yaa ngi may waaj a tiital sax kon bu sama doom ñëwee te mënul def ay devoir am moom kenn lu ma war a xalaat. ah explication yi nag euh, bàyyi na ndaxte su fekkente ni sa doom mënul def devoir yi moom moom kenn su fekkente ni dafa soxla kenn xëy na dafa am ni ñuy woowee ay lacune maanaam dafa am ay jafe-jafe yoo xamante ni yàgg na ko am ba nga xamante ni li muy devoir yi mu war a def dafa war a dafa war a xam ay xam-xam yoo xamante ni waroon na ko maîtriser ci benn classe bu bu mu dépassé waaye xëy na dafa dafa jàll te warul woon jàll xëy na dafa waroon redoubler benn classe te euh, léegi nag li mu waroon xam xamu ko ba mujj bi dafa nekk ci benn situation boo xamante ni euh, il faut que ñu waat ko di ko expliquer waat ba mu euh, ba mu ba mu mën a jàpp defal devoir yi moom boppam mais nag problème bi mooy que Euh, am na ay xale aussi yoo xamante ni seen li ñu leen di jàngal école ba ak façon bi ñu leen di koy jàngalee aussi dafa adapté wul ci xale bi ci boppam ba nga xamante ni euh, moom su demee su nekkee école du jàpp li ñu koy wax du comprendre li ñu koy wax wala aussi mën na nekk ci benn kër boo xamante ni su heure devoir yi jotee du am fu mu fu mu toog pour def ay devoir am dafay bari bruit yi wala du am fenn foo xamante ni mën na fa defee devoir yi moom kenn ba nga xamante ni def devoir day metti ci moom Euh, waaye léegi xam nga élèves yi ñi ngi ay maternelle ak ay jardin d'enfants ak ay yu nekk lu nekk ban classe la devoir yi war a commencer ah man damay dégg ay école yoo xamante ni dañ leen di jox ay devoir maternel man dégg dëgg su ma ko déggee sax duma ko mën du ma ko mën a gëm ndaxte école maternelle man ak maternelle daf dañ koy dañuy wax ni école la mais en réalité benn bërëb la boo xamante ni xale yi dañ fay dem pour jàng naka la demee école maanaam euh, dañ leen di jàngal naka la ñuy comporté woo suñu nekkee école jàngal leen naka la ñuy respecté ay sart naka la ñuy nekkee ci seen biir te ba nga xamante ni suñu demee ba toll fu ñu fu ñu war a duggee école maanaam dugg CI wala dugg CP ñu xam naka dem école daal du nekk da loo xamante ni day metti ci ñoom parce que commencé nañ tàmbali nañ ko bi ñu nekkee xale bi ñu amee ay deux ans wala trois ans mais du du du benn période boo xamante ni dañuy joxe ay devoir amul benn sens nekk maternelle même su fekkente ni da nga nekk grande section di joxe ay devoir ndaxte àndul sax ak stade du développement bi di xale bi toll ci ay at yooyu mais nag <clears throat> devoir mën na commencer euh, suñu su xale bi nekkee CI wala CP Euh, waaye nag euh, kii euh, Mariem même devoir yooyu ngay wax noonu naka nga mën ban ban bu devoir yi ba demee ba bari la fan laa mën a toll ba xalaat ni ah sama doom ji devoir am yi dañoo bari lool. Euh, ay devoir nag dayoo daal baal ma pour naka la ñu xamee ni euh, devoir yem na li ñu jox ci de ci ci devoir xale bi yem na mooy nii euh, par exemple ku nekk CI wala CP su su ñibbee këram ay devoir am waru ko waru ko jël ay jël temps bu bu bari maanaam mën na jël fukk ak juróomi simili su fekkente ni mi ngi CI wala CP te nag ñu nga ci yokk sa su ci saa su passé benn benn kii benn classe. nga yokk ci beneen fukk ak juróomi simili maanaam su nekkee CE1 wala CE2 euh, ay devoir mën na ko jëlal euh, trente minutes maanaam euh, fanweeru simili ci ci ci kii bi ci su su ñibbee këram say su su suy dem di avancer rek ñu ci ajouter ay 15 minutes ay quinze minutes xam nga su demee ba egg sixième wala cinquième xëy na ay une heure wala une heure et demie lay passé ci ay devoir am su fekkente ni dépassé na loolu rek jéggi na dayoo dëgg-dëgg ndaxte amatul sax benn efficacité bi day dem di di jàng bay dajjant ci kaw ay kayem ba nga xamante ni du am du du mën a fo su su ñibbisee te loolu tam lu am solo la su xale boo xamante ni ñibbi ñibbi na euh, jógee école am dafa war am benn temps boo xamante ni dina lekk dina dalu dina sieste dina dina fo tuuti loolu yëpp lu am solo la. Euh, waaye léegi Marème est-ce que sama question bi mujj est-ce que devoir yu bari yi day firnde ne école bi suñu doom yi nekk moo gën ci école yi walla école bu baax a baax la. Euh, damay dégg ay waajur yu bay yoo xamante ni ñoom dañuy dañuy lool loolu la ñu gëm dañu gëm ni su fekkente ni da nga bay bay devoir euh, dafa da nga ça veut yaa ngi ci école boo xamante ni école bu baax la te nag euh, xam naa ñu bay dinañ ma ci mere sax ci ci xalaat boobu waaye man li ma xalaat mooy mooy vraiment safaan wa maanaam école boo xamante ni devoir yi dañoo ëpp moo nekkul école bu baax ndaxte école bu baax mooy école bi nga xamante ni li ëpp ci li xale xale bi di jàng ci biir école bi ci biir classe bi la koy jàngee ak professeur am su fekkente ni professeur bi nag moom dafa moom dafay def leçon wam su paree ci leçon bi jox leen ay devoir yu baree bari ba nga xamante ni am na ay élèves yu bari yoo xamante ni devoir yi sax duñ ko corriger ci biir classe bi duñu sax am temps corriger devoir yi parce que dafa bari ba nga xamante ni su ko professeur bi waaye corriger waaye defaat yeneen leçon du jeexal programme année boobu moo tax de def ay devoir doo corriger devoir bi amul benn sens ndaxte loolu tam il faut que ñu fàttali ko su fekkente ni professeur bi dafay joxe ay devoir du ko du ko corriger bon professeur boobu hmm. nekkul professeur boo xamante ni mi ngi def liggéeyam ci yoon euh, te nag euh, moo tax ñun ñi waajur yi mooy suñu responsabilité suñu gisee ni euh, école bi professeurs yi dañuy joxe ay devoir yu ëpp ay devoir yu kenn dul corriger ñu war a dem ci directeur yi directrice école yi pour mën leen wax ni lii dafa lii baaxul ba parce que seen doom yi aussi soxla am seen week dañu soxla euh, am seen temps pour mën a reposer wu pour mën a euh, am ay activités sportives def sport def lu ay ay activités création mën a def musique mën a def dessin mën a def lu leen neex yoo xamante ni aussi day participer ci seen développement ndaxte jàng jàng jàng lu baax la waaye tam am na ay temps yoo xamante ni élèves yi dañu war am yeneen activité yuy ubbi seen xel neneen nu dul jàng école soo gisee ay ay dëkk yu mel ni Allemagne mel ni Suède yëpp da ay dëkk la yoo xamante ni une heure ci après-midi la école di jeex xale yi du am presque benn devoir ñuy def te defe naa dëkk yooyu ñoo ñu ëpp ay prix Nobel ak ay ay invention ah leer ba dañoo ñu gën a avancé ngeen baal ma ci wax ji jërëjëf Marième. merci Aïda à bientôt. Sud Éducation. Tenir un enfant par la main, l'aider à traverser les âges, à affronter la vie en toute quiétude.

Alors Mariam, peut-être que les auditeurs vont se dire, mais quelle question À quoi servent les devoirs Alors on parle bien sûr des devoirs à l'école, hein, donc les devoirs que les maîtres et les maîtresses et les professeurs donnent à nos enfants. Donc à quoi servent-ils eh d'abord à appliquer les leçons qui ont été apprises à l'école, euh, à aussi l'enfant à se replonger euh, dans les leçons de l'école lorsqu'il arrive le soir à la maison, parce que l'une des meilleures façons de retenir une leçon, c'est de la de l'appliquer d'abord, et puis surtout euh, le jour même où on a lorsqu'on, lorsque l'enfant fait ses devoirs, il va lui-même se rassurer sur le fait qu'il a compris. Et s'il n'a pas compris, eh va lui permettre aussi de formuler des questions qu'il va pouvoir poser à son maître plus tard ou à sa maîtresse pour avoir des explications complémentaires. Et puis, les devoirs servent également à rendre l'enfant autonome face au travail scolaire. Alors, doit-on faire euh, les devoirs avec nos, enfants Doit-on les aider euh, et les faire avec Alors dans un dans un monde idéal, pas du tout. En fait, euh, souvent les parents pensent qu'il faut organiser euh, euh, l'après-école avec un répétiteur, avec un grand frère, une grande sœur, un oncle, une tante qui sont à la maison et qui vont aider l'enfant le, ou soi-même, c'est-à-dire en tant que maman ou en tant que papa, on va se dire qu'il faut s'investir dans les devoirs des, enfants, mais en fait le seul rôle du parent face aux devoirs, c'est de vérifier quels sont les devoirs dit tout à l'heure, les devoirs sont faits pour que l'enfant soit autonome. En fait, il a appris euh, à, en classe avec son professeur et maintenant, arrivé à la maison, il doit se confronter à lui-même. Donc, et c'est aussi le fait qu'il puisse faire ses devoirs tout seul est une preuve d'efficacité euh, de la manière d'enseigner de, du prof, de la pédagogie du professeur. Mais euh, alors du coup, euh, quand on a un enfant ou des enfants qui n'arrivent pas à, le, à faire leur devoir tout seul, quelle conclusion doit-on tirer eh bien, on doit comprendre que plusieurs choses sont possibles. D'abord, peut-être que cet enfant traîne des lacunes qui sont si grandes et si profondes qu'en fait, les, les, leçons ou les exercices qu'on lui donne euh, lui demandent des compétences qu'il aurait dû avant, donc une classe avant ou deux classes avant, et qu'il n'a pas. Donc, ça veut dire que ça ne, vient pas du fait qu'on lui explique mal, mais ça vient du fait qu'on on, on considère qu'il a compris des choses alors a pas du tout assimilées ou plus. Euh, ça peut venir aussi quand même du fait que l'enseignement qui est donné à l'enfant n'est pas véritablement adapté et que donc il y a peut-être un problème aussi de pédagogie par rapport à l'école ou que l'enfant a d'autres problèmes qui peuvent être même des problèmes sociaux qui font que ne comprend pas bien ses leçons et finalement euh, euh devenir une espèce de souffrance parce que euh, euh, y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres critères en fait qui ne sont pas réunis pour qu'ils puissent les faire correctement, comme par exemple même à la maison peut-être qu'il manque de calme aussi. Ça peut, euh, peut pousser l'enfant à ne pas du tout réussir ses devoirs. Alors euh, maintenant, on est à une époque quand même où euh, l'école commence de plus en plus tôt, euh, la, les maternelles, etc. Les enfants y arrivent vraiment très vite. À quel âge est-il vraiment, ou à quel niveau, disons, est-il convenable pour les enfants Alors, il n'est pas, euh, c'est vrai qu'il n'est pas rare aujourd'hui de voir des enfants qui sont à la maternelle et qui ramènent des devoirs à la maison. Bon, moi, je, je, j'avoue que ça me fait vraiment euh, sourire, <laughs> voilà, euh, parce que euh, parce que et normalement, on ne devrait pas avoir de devoirs avant euh, le CI, CP, euh, puisque quand on est en maternelle, on fait essentiellement de la socialisation, c'est-à-dire que l'enfant va apprendre, il apprend à apprendre en fait, il apprend à aller à l'école l'école, il apprend à se comporter. Rien que le fait de se réveiller le matin et d'aller à l'école, puis on revient le chercher, donc toute cette, tout, tout ce, ces rituels autour de l'école, c'est une manière en fait de le préparer à aller à la grande école. On lui apprend à respecter des règles, on lui apprend à vivre en communauté. Et donc euh, c'est surtout ça euh, qu'on apprend à l'école maternelle, et donc il n'y a pas de devoir à faire autour de ça. Hein. Euh, et, et, donc il, il n'y a pas lieu. Je pense que vraiment il faut dire aux parents, euh, j'espère qu'ils m'entendront, que lorsqu'ils sont dans une école euh, maternelle et que cette école, euh, et même si c'est dans une grande section de maternelle, euh, leur envoie leur, des enfants à la maison avec des devoirs à n'en plus finir, il y a vraiment un problème parce que c'est même complètement à l'antipode de, du moment d'évolution de l'enfant euh, qui, qui n'en est pas là en fait. Donc on est en train de prendre trop d'avance par rapport à, à son développement et ça ne peut que être un frein, ça peut le dégoûter de l'école, ça peut vraiment complètement euh, inverser euh, ce qui aurait pu être son avenir scolaire. Euh, alors, euh, mais de toute façon, Mariam, on voit quand même euh, qu'il y a des écoles qui donnent énormément de devoirs. Alors, vraiment euh, à, à, étonner. Alors, j'aimerais que tu nous expliques à partir de quelle quantité, si je peux m'exprimer comme ça, on peut euh, considérer qu'il y a trop de devoirs. euh, eh bien, en fait, les devoirs, ça se mesure, euh, la quantité, comme tu dis, de devoirs va se mesurer plutôt au temps que l'enfant va passer à les faire. Donc, normalement, au CICP, les devoirs ne doivent pas durer plus de 15 minutes à la maison. Vraiment, c'est histoire de, comme on est dans les classes où on apprend à lire, en général, euh, le, maître ou la maîtresse va donner quelques petits mots à relire à la maison avec euh, les parents pour revoir les sons. Et sinon, après, par

alors qu'en réalité, ça étouffe un petit peu les enfants. Alors, euh, moi aussi, j'ai parfois l'impression euh, que le, la, la quantité de devoirs rassure les parents. J'aimerais que tu me dises, toi, euh, est-ce que le fait d'avoir beaucoup de devoirs est une indication que nos enfants sont dans une école d'excellence

parents qui, eux, travaillent énormément pour payer l'école, justement, euh, de devoir en plus payer quelqu'un euh, qui va faire faire des devoirs à leurs enfants, alors qu'en fait, ils, payent pour que ces apprentissages soient, acquis, en fait, à l'intérieur même de l'école. Donc, euh, lorsque les professeurs sont limpides, lorsque le cours est bien mené, lorsque la classe est bien faite, lorsque le programme est bien suivi, eh tout est fait. Et lorsque l'emploi du temps est bien être sûr que l'enfant ne va quand même pas juste fermer ses cahiers et aller se coucher ou aller faire autre chose. Il faut qu'il revienne un petit peu quand même sur ce qui a été fait dans la journée, mais il faut pas que ça lui prenne, comme on le voit souvent chez les enfants, tout le week-end, ça prend euh, toute la soirée. Et en Ils sont vraiment dans un état de, stress, c'est-à-dire que qui est permanent, c'est-à-dire qu'ils se disent ah mais quand l'enfant est dans, un, dans une classe d'examen, on va lui couper ses vacances scolaires. Et tout ça, c'est vraiment euh, complètement à l'antithèse de ce que devrait être l'école, qui est un lieu quand même d'épanouissement et qui est un lieu où on peut tout à fait associer euh, euh, le, le, fait d'avoir de vrais loisirs, de vrais week-ends, tout à fait avec, avec aussi un réel apprentissage. Et je le dis très souvent, je l'ai beaucoup dit, dans les pays scandinaves par exemple, et en Allemagne aussi, euh, on a des, des, des, des parents, enfin des élèves qui vont arrêter l'école à 13 heures et qui vont faire des tas de choses. Et je pense qu'il compte beaucoup plus de prix Nobel que le Sénégal. Ah, <laughs> je suis d'accord avec toi. Je te remercie pour ces éclairages. Au revoir, Mariem. À bientôt, Aïda.